gis bu caaxaan jeexee dëgg ci des comme que temps yi liggéeyoo defoo dara te xam nga kër gi fii ni mel boo jàppul ci dara dangay sonn te lool laa lay bañal léegi nag comme maa ngi produit yi nii di jaay dama la cee bëgg a jox produit Dream cosmétique yi lait de corps la ak gel de douche bi gel baa nekk nii poola bu baax gis nga teel. dangaa bëgg daal may jaay. ah boo jaayee nooy def da toog ba kañ. damay toog du ma yor dara banque gi ma nekkee. temps lotion baa nekk noonu bii crème bi la soxlawu ma lay jox explication yu bari boo liiree di nga comprendre lépp. comprendre léegi nag am na yii am na yeneen boo ci soxla rek lépp Dream Cosmétique lay jóge boo ci soxla rek dama la koy jox. yu baax la de. Hmm. te client boo indi nag danga nga ci am sa pourcentage. Hmm. xam nga avantage la. moo gën toogaay bi. parce que comme que nga sa liggéey. Hmm. te boobu tey da ngay tëdd di nelaw ak yooyu noonu. maa ngi ciy jox yeneen. dama lay jox yëpp am na bu nekk boo ci bëgg rek am na lépp laa lay jox. Hmm. dinaa la jox ci parfum belleer yi jox la ci yii nii am na paw paw bi am na yëpp karawaayit bi mu ngi nii. yëpp laa lay jox. en tout cas daal ma sa xam naa <laughs> moo ëpp solo de moo gën mbaraan gi amul solo. mu ngi commencé léegi. du fi ne sax di ko bëccëg. bëccëg <laughs> bu ci dugg sax ak leble surtout. <laughs> donc am na loo xam ne depuis bi kër gi mele nii ba léegi maa ngi koy observer de loin ñu tekk ñu defe ne peut euh, xawma ci dara. te lu bari yëg naa ko li ma bëgg nga xam ko rek mooy le feu couvre dans ton foyer te tu as intérêt à très attention à rester ferme aussi gis nga jeu de yooyo bi am ci kër gi bu ci sa diggante digganteeg sa ñaari soxna yi la di seen kilifa moo tax ma toog wax ak yow waxewu ma ko boole waxewu ma ko dara parce que man su suis pas dans ces choses mais su ma gisee lu lay gaañ di la yàqal dinaa tirer sur la sonnette d'alarme parce que bu bel mii yàquma ko de bañuma ko su ma waxee nañu defe ni peut-être dama contre mariage am wala nangam loolu dafa nekk ci ku gu metti te waa kër gi jàppale ko ci loolu parce que bu ñëwee tey di étaler li mu am ni ne day teralaate fu nekk mu baatare fa te nga xam sa ñoom tànt ñii seen jikko ndax ñoom leur religion première c'est l'argent ñoom fu leen xaalis fekk rek ñu leen ci fit yóbbu leen ñoom ñëpp a jaay seen dignité sagam amoon nañ ko mu jël leen ku ci nekk mu lay jënd parce que pour moom peut-être euh, ku ci nekk rek tu as un prix di ko defanteeg Fatou ne mii nga xam ne xëy na yow la yaakaar dooleem demeewul noonu ñu nekk ci ay tiiraayu ak ay wujje yu metti yoo xam ne dama gis ne boo ci jógul sa kër a ngi tas de damaa xamoon bàyyi ca rek mais nag euh, ragal tiit naa daal faut que tu sois ferme jóg ci ndax xoddi ko balaa ngay lakk li nga wax nangul naa la parce que man aussi xam naa d'ailleurs jot naa ci waxtaan ak benn toog naa fii moom ak Fatou ki ne wax ak ñoom wéet naa ak moom aussi wax ko li ma koy wax de toute façon quelque part dafa am benn influence externe bu ci am mooy sama jabaru papa te lu mel noonu laa doon bañ sama kër moo tax dès le départ su ma mënoon bañ ñu dugg fi duma ko dama koy def mais mënuma ko parce que ki leen kii seen kilifa mooy sama kilifa mooy sama baax yooyu nag qu'est-ce que waxtaan ak ñoom waxtaan ak Bel waxtaan ak Farkine kenn ku ne am nga say manière Farkine certes des fois mu génn moom réewante la yor mu wax ak ñoom wax yoo xamante ni personnellement man sax je suis kër gi wàcc na démb ba zéro moom la dégg laa ilaha illallah ñaari xale yi ci kër gi dee ngi def kër gi doom di ko dëbb ba mu mokk leen nga xamal naa la ko mel mii bandi la de. Hmm. bandi cerveau la wéyu hmm. démb daal lu neex la def ñun dañoo taasu ba ne saay doom xam nga xale bi dafay nekk jaay reewale di dangañ mag ñi heurtër ma ba ma ñëwee ñu nettali ma ko dama ko wóolu fii ci salle bi moom Ndeye Ndiaye ñu toog ma ne ndey Ndiaye lan moo tax gërëmoo leen Fatou Kiné xam nga lu mu ci tegal ay xas bien fait pour Fatou Kiné gis nga ki Kiné comme dafa réew neexu la faral. bel dina ko defaat lu gën a pire yi te bu boobaa man maa koy appuyer ndax ko faat ki ne moom xamul ku ko yërëm ak ku ko bëgg xamu ko ratu laa wax daa muuma daa jël muuma rek jënd ko démb démb moom doy na waar waaye leen dinaa la ko xamal waa bel moom xaalisam bii fan la jóge ah jaaxalu la jaaxalu ma de jaaxalu ma de leen dinaa la ko xamal fekkee xamoo ko nag ma wax la ko ab tubaab la doon sëyal màggetub tubaab mhm. bu bon mhm. yaa ngi dégg mhm. mu fexe ba poisonné ko poison bi nga xam ne danga koy lekk mhm. mu lay ngacc ndànk duñ ko yëg boo defee si dara du génn ngay suwaar bi de waaw wala hmm. mu rocc alal yëpp daw ñëw senegal teg ci nag ah ga ah, ma gën a xam ba topp ah doxu guddi bi cagat mu yéen hmm. hmm. bel cagat la nekkee woon France yow mi yow yow xadi baaba yow foo ne man xam nga man fi ma toog laay toog mais Ndeye Ndiaye information bu ma bëgg a xam man Ndeye Ndiaye moo ma koy jox ñu ah, léegi naa lu bon la nekki woon Paris lu bona bona bon man kay buu li tax man mu lëndëm rek ah lëndëmal xelu buu bi rek bu buu takk ko man moo ma jaaxal man. nga buu xamul dara nag. man mi xaw ma woon dara de xamal ma ko woon dara de. buu xamul ay eh, buu xam na parce que buu nañ waxante dëgg daal na dégganteeg moom ba mu nekkee Paris. waaye loolu lay dafa mu nekkee Paris kan ngay gis ku cagat ne ci cagalaa nekk rek. bi yor xaalisam da di génne di passé passé di sànni partout partout. moom xaalis ba xalaatu ci na jee xalaatu ci dara. asu xaalis am xet mës ngaa gis xaalis bu am xet waaye nag amul xet xadi baaba ñu ngi koy lekk dama lay wax benn affaire xaalis bu la lewulee boo tëddee waroon nelaw man de wax dëgg fa yàlla xaalis ma lew rus naa tiim ko di ci lekk lenn muy dugg sama biir wala ma ko jox sama njaboot yow la benn dundalee fan yëpp baan xam nga ne xaalisam la te bu dee xaalis bu lewul ngay bañ mi ngi sa biir baax waaye yéegi dama lay wax yow man bel ba ma joxee ba ma joxee enveloppe bi euh, lan laa def enveloppe bi pour yow lu ma ko def ci laa génne joxe ko yow borom jakataa bi nga woo cucca jox ko cucca di nga wax biti laa gërëm. waa léegi est ce que loolu lekk naa ko maa ko. waa léegi sa yaay lekk na ko. du sa yow yow kon da ngaa wér. joxuma ko sama yaay yónnee ko sama yaay de. waxat baaba yow da ngay nelaw man yooyu du ma ko def xalaatuma ko alal bu lewul daal wacc fa laa en tout cas leen dinaa la ko wax kër gi moom mu ngi mokkaru mbax waaye bien fait pour Fatkine comme Fatkine dafa réew respecté wuñu joxuñu cër lu ko waay def dagar na te luñ ko defati man dootuma ko faralati. ba xam nga ni ñëpp a taasu. dootuma ko faralati man géer gi bambara bi sax damaa taasu démb. loo taasu yow loo a ma waxati sax dama ko wax. waaw ah, loo waay laa ko wax. waxal li nga bëgg ba tudd ko mbaax gi nga bëgg man daal way a ko daal ba génn ci daal sama yoon nekk yow xabaar li yàq ma ne ku la defal lu baax nga wax ko amul géwél amul géer yaa ngi dégg ah, lu tax waaw ah, tuuti rek ba ñu mayee yaaram ba matériel da dama koo waxal lu baax yaaram am na jëkkër yow yàlla na yàlla def jàmm yàlla def ci njaboot gu barke xale yu ndaw yi nag ñëpp ñoom ay aadama ñoom aadama day ay ñoom laal la xale yi yéen naa leen di sax non faa ma dem faa mu takk jabar moom it ba ban xanaa <laughs> xale yii moo gën a yées est-ce que li mu yor baax baaxul. Belle elle de jouer la gentille moo tax muy ñëw di joxe ay xaalisam sama quelque parce que xaalisam la aussi quelquefois mënuma ko tere mu joxe ko mën naa wax ak moom nag parce que day àndi ay difficulté ci kër gi day andi ay problème ci kër gi mais sama problème xam nga lan la yaay mooy ñoom bu ñu amee ay problème ba ah, xuloo fi ma yegsee kan laay laaj bu la weesoo yow koo fi laaj mu wax la loo xamante ni soit day faral kenn ki wala keneen ki jënd ko. sama kër li ma la wax moo ci nekk c'est l'influence extérieure te ñooñu weesu lu dul sama yeneen jabaru papa yi man nag solution bi ma gis mooy jéem a xool nu ma jël sama njabar gu sew gi fopp leen ànd ak ñoom fenn toog ni ma defoon fii rek su ma dëkkee ñoom ñaar rek y mooy de problème ak problème yii nii man je pense que mooy solution bi ma bàyyi fi sa mbaab ba pare di fayal sa bopp di veiller à ce que ñu fay chaque fin du mooy solution parce que man maman lii mënuma liggéey sax avec la tête tranquille waaye nag danga yaakaar ne yow <laughs> sa papa loolu dina tax mu toog sa papa damaa bëgg nga xam une chose sa papa la waaye dafa tàmm ñu koy gàddu ba keroog muy dugg suuf yàlla na yéex boo demoon dëkk ba gannaaw Antarctique sax dala fay fekk ndax dafa tàmm nga di ko gàddu loolu la xam. ñii bu leen bàyyi woon ma je sais qu'en âme conscience que ne Fat Kiné Bell bu ñu leen bàyyi woon ñoom ñaar sans la présence d'une tierce personne ci seen foyer danañ am jàmm waaye comme lii am na jël ci sa ay mesures yu ferme bu ci bañ ko la mere parce que am na loo xam ne boo bàyyee mu sedd du ko nit dal di ko man dama mal placé boo bàyyee mu sedd ñoom ñuy dugg di jaxase di kii bu subaa tu seras le grand perdant yàq sa foyer la ñuy def ba pare toog fee di la waxtaane ñoom ak di la kekku di la ree kenn bëggu fi kenn ñoom ñépp ku ci nekk rek say intérêt ngay défendre xam naa seen jikko dërëm lañu bëgg yow daal jëlal say mesure soit ferme ku nekk waxal ak moom kenn ku ne na xam fu mu yem jàmm ñooy waaye lu weesu loolu nag bu sax bu xewu ndey njaay bi waxaatoo ci dem hmm? mu ngi jege seet xewu ndey njaay bi boobu ba léegi waxoo ci dem bon yaay njaay c'est vrai que mën naa ko promettre que ni dinaa ko ngénte te loolu promesse boobu duma ci jóg mais nag bët du yenn waaye xam na lu bopp àttan su ma jógee léegi naa dem jëli benn un million jox la ko. bu un million. yaay un million. bu xew geeg gi mu woote àdduna cëpp da nga un million un million mën naa jënd beñe ba jënd bay ngente. yaay un million mënut a de mënul ah, man sama man sama ngente defuñu ci woon un million yaay. yaay contexte yi bokkul. yaay. un million laa am pour jàppalee ko Ndeye Ndiaye mi ngi tegg ay nattam na lijjanti ay yéreem yëg naa lu bari lu muy dajale ñi koy jàppale ñu ngi koy jàppale dinaa yëkkati un million jox yeneen yi jëm ci wàllu dépense ay soble ay affaires yooyu am na ay commerçant yu andi léeg denrée yëpp dañ ko andi loolu nag laa mën un million bu ci demee jënd nagam jënd ak nagam ak je ne sais pas xaram mu ngénte ngénte dañaa kan lay andi am na ay nitu Ndeye Ndiaye def loo mën la loo mënul de waaye Ndeye Ndiaye yëgal na Sénégal gépp di. waaw yaay. diaspora ga sax dina ne yëgal. waaw mais nag yaay nag yaa ngi may bëgg jaaxal mënoo ma wax la nga may wax léegi daa après nga bëgg ma waxaat lii. non def loo mën a loo mënul dama man sama bopp li ci nekk mooy ma lijjanti xaalis bu ma jël yóbbu ko ci sama kër gay am sama këru bopp. waaw kay un million bi ma koy jox mënuma ko sax mais dama ko war a def rek moo tax ma koy def. waaw ah, na ko moom nga mën rek boo jógee jox ma ko. million bi nag yow bàyyi naa sama jabar yëpp ñëpp laa yóbbaale waaw yow mii sax yóbbaale naa la dinaa jox nga jox ko. d'accord ma seet ba xam ni ñu def rek bu jógee jox ma ko kon. naa la ko jox léegi. nga woo ko jox ko li ma la wax bàyyi ci xel rek say jabar daal fexeel nga <laughs> ne ma la woon yow soo bëggatee ku toog moo war nga toggaam ah déedéet nag déedéet yow chérie di nga nekk ci kër gi ma may toggloo man dama bëgg waañ toggal rek <laughs> waaye wax naa la boo sonnatee nga may woo ah, xam nga yow sama chérie xam nga premier njëkk nag yomb ah, doom sa premier njëkk koo tere koo tegal añ naan da koy toggaloo waaye war naa laa toggal tamit loolu du dara waaw yow moom xale bu baax <laughs> bu tey ngaa a xam ah waa ah, ci bu boo def dara kii na nag maa yooyu waxtaan nag bu si boole keneen yaa ma ko gënal waaw wi ma hmm. bëggoon naa ñu waxtaan hmm. euh, xam nga tontoo ci am dafa ubbi benn kii nu mu tudd sax euh, benn resto bu nekk si côté kiyam bi bu am bi ah, gis naa ñu def foofu Afia Food waaw léegi maa moom dañoo def benn partenariat hmm, sama copain bi moom ma moo ma moo ma financé Tétart kat Tétart sama copain bi fii ñëw ah ma financé léegi foofu laa nekk fa laay liggéeyee xam nga commencé ñu sax waa maa moom ñoo bokk. am nga ku ne cinquante pour cent. waaw <laughs> ah, ba lan la kin ne. tonton Thiam kat damaa xam ne moom wax dëgg yàlla neexut a nekkal <laughs> ah doom mën ngaa muñ. waaye léegi man xam nga foofu laay liggéey xam nga kër gi toog fi moom mooy loolu ndax lu waaye wax dañ la siy boole. Mhm. yoo xam nga jikko waa kër gi. Mhm. te kin bëgg naa nga xoolaat sa toogaay bu baax. Mhm. kin ne bu léegi changé na de. gis nga deuxième bi ni mu ko jëlee aj ko ba si kaw. bedd la teg la nee def yi fu saytaane fi mu ne Amina xaalis bu mu am moo tax mu jël ko teg ko ci kaw yoon nag su ma sañoon nga ut loo def toogaay bi amul benn njëriñ nag benn njëriñ amu ko ah tey damaa sax kontaan ci yow nekk te nga maturé waaw ah. hmm. loo yaakaar ko gis sa mag li may def fan yëpp changé comportement góor moo bëgg lu bees maanaam dañ lay xemmem dañuy am seen rab am seen jinne bu leen di jommal ñuy wuti ci mbedd mi dëmm waa kër gi nag moom ak xaalis yaa ma gën a xam. longue histoire damaa jaaxal man gisoo maa ma ak moom koy rombee parce que man maay sa premier ah, xale bi lii lay doxantoo am na ñoo xam ne lii la ñuy mais man yooyu yëngalu ma. non man tey waxuma ak moom lu jëntu ma. waaw ah, xam naa ne xam nga dara yow maa ngi toog di la xaru. nga toog fii nga toog laa ngi sa waxtaan. yow jógal dem nga naa ma kañ nga ma bëgg a yónni. yaay man damay toggal fat ki ne añ de. ah de dem koo def léegi moom. di ah eh. foofu noonu yaay dafa sori ba pare day bëri nit. eh defal nii gesul gesul man ma man sa yaay man wuy ma man maa wax yow ma ni. nga jóg nga demali ma butigu Ousmane. li ma sama bagage ya ma fa bàyyi fay naa ko ba pare nga ne ko sama yaay nee na ma jël si samay bagage laa la wax nga. man bañu dem de. dama ne nga xaar ma toogal fa ak ki ne añ ba pare suñu añee ba pare ma daal dem fi nga ma yónni na foofu dafa sori ba pare dafay bari ay nit. awa togg gi nga ne danga koy togg. doo ko togg booy toggal dangay toggal gone gu ko jar ak ku yaruf ak ku respecté mag ku dul xas benn mag ku dul këll këllee benn mag xam nga nag lu ma lay bu ma jaxasee àddina dama ne nga jóg nga jaax nii fi ma la yónni. yaay ma jaxasewu ma la kenn te man li la ki ne di def loolu ma sama yoon nekku Ah. essentiel dama koy toggal añ ba pare doog a dem fi ma yónni. moo ma jege kër fii fii lu ma fi jege waaye fii lan moo ma eh. may dóor. ma ne nga jóg jaar nii. awa danga may toggal waaw damay damay togg lan bëgg ma togg ko. awa awa yee eh, ma fii sigil xool ma awa ma dangay toggal Fatou Kiné wala dangay dem fi ma la yónni. eh dangay toggal Fatou Kiné dangay dem fi ma la yónni. boo boo jàppee nan laay xamee li li may def bàyyi ma woon la bàyyi bàyyi Fatou Kiné waaw waaw yéyiti nga sama nopp doom ji yow de gone gi xas ma léegi fi toll nii moom moom moom doyatu la xam nga loolu léegi loo nekke jaxase ma ak sama doom ay yow fàtki ne yow yow yaay ban façon fàtki ne tuyee kii ay fàtki ne were kekke mi yow lan la yow jëndi nga wala rag nga wala dëmm nga wala nooxool nga wala yow loo doon yow boo ma ci bii boor mën ca bële boor awa noppi laa wax du xam laa wax fàtki yow laa waxal yow kii moom du mën a dem. kii du dem. yow loo xale bi. mi ngi taw. loo xale bi laa wax. sama doom. xale bi dem weekend kii xale la. xale bi ndeyam bàyyi mu libre di dem weekend kii xale la. yow nag yaa yaa bon yaa yées dégg nga lay xas yaa ngi dégg lim lay wax. waaye xale bu ci màgg dëbb di sa dëbb du ndey. léegi loo bëgg a wax ndeyam noonu la doon doxee. a ah, wax waasal ma jën yi. Eh, loo bëgg wax foofu ndeyam noonu la doon doxee. bu fekki ne yow kon yow wop kon yow ah, ah, yow dara jotu la nit njaay nga feebaroo jinne mbeju la naan jigéen sama doom ji sama gattala dalul gattalu la lu wokkul dërëm wokku la dangaa réew ba def ak sa bopp ndaw bi man boo may tontu ma lay ñuus fàtki ne man boo may tontu ma lay ñuus tontu ma tontu ma di fi mu toll nii si lan la xewati ba nga may déglu ah li ma war a jox yow fi mu toll nii yow affaire yëpp yombalal naa la ko de ah bu am na lu mu engagé wu léegi yow li ngay engagé wu génne ko mu jeex benn yoon. waaw man dafa nàkk yow yow bu comme yow man joxuma noonu déjà un million. waaw un million yi. léegi te bu nee na dina gérer kon yow lay laajati. déedéet da may dolli gàtt gàtt deux millions di ma ko dolli wala million. lan ah! <laughs> ci la. Eh, dinaa la tuuti. gis nga def loo man wax loo man boo tëddee nelaw. man bokku maa ñi ñiy ngénte suba ñu toog ci nen di xaar convocation. di ragale génn ragale wuyu téléphone ngénte yooyu man nekkuma ci li ma man laay def waaw maa la ko waxoon bu ma jógee dinaa la dolli cinq cent mille lan cinq cent mille waaye da ngay nelaw wala ban problème nga am da ngay amee insomnie wala man nelaw ko ma mais yow yow ba cinq cent xam nga cinq cent mille ni mu toll waaw cinq cent mille dafa mën a jën sa voile ak carax wuyu ma déglu ma rek eh bu ma indil problème man cinq cent mille doyu ma te un million yooyu ngay wax ba ma yàgg na waaw léegi loolu faj naa ci yu bari ak couche xale yi yëpp yu bari faj naa ak tissu yi ma jot a jël couche yi nag koron madame Mbow rek li ma joxoon ci paquet couche yi ba ma jox la ana mu foo ko def dafa jeex xale xale day utiliser couche à tout moment jeex na non defal naa ndey ba ngay correct yow buuj cinq cent mille jox naa la un million bu nee na dina seere waa kër gi duñ la seetaan xanaa loolu ngeen dina wala loo bëgg a def nag lan mooy waa kër gi duñ ma seetaan ba man aw maa waa kër gi doom yow laa amal doom mais waa kër gi dañ cee ñoom ñoom yaay la ñu ñëw sa wujj yi ay yaayi gone gi lañ ko ñooñu bu ñuy ñëw ay junne ñaari junne lañ may indil mattuma dara te ay ndawta la wax non yow xamoo lu ñuy def xamoo lu ñuy def ñoom xam nga ne duñ la seetaan dinañ jàpp te bu jàpp na ci yow it defal loo man suba ngénte ba ci suba ga ñun ñëpp ni toj def ni am na lu ko gën ba góorgóorlu woo ba góorgóorlu woo ni amoo jom de ndax ba nit sa jabar bu bu leen la tëf na la euh, nijaay ëmb naa jour boobu nga war a daaj sa condamné te yow ba ma wasinee du dara nga loo génne fayoo hôpital lijjanti woo dara xanaa kon nga mën maa ngénte sagal ma ba ñaari xew xewlaay boole mariage ak ngénte loolu dafa dur de te yëgal naa ko senegal ñëpp sa ndam la bu ma fi nekkee sañse di dugg ak génn dañ naan jabaru diw bi yow yaa téye bës bi waaye du man léegi munoo sagal sa bopp dimbali sa bopp ci bis bii ñu am benn bis bi nga xam ne benn fan la ñu xew ko noppali ko ku ne toogee ko te xew mi yàgg na de xale bi bu doxee fii eh, di nga rus de di nga rus de ba ngay nelaw nii dara safu la cinq cent mille doyu ma benn yow nga sol yéeg sol voile ak sol dus yëpp madame ba ngay doon nga sol jasneer sol vax madame ba ngay doon kon mbir mi du ci sol nee naa la man duma ñuy ngénte xëy ñu leen di ko convoqué ñaanuma ko yàlla xoolal looloo fi ne cinq cent mille yooyu laa am moom laa ciy def noo xam def ak moom loolu laay dolli. jeex man awma jë ba yàgg naa laa sagal yàgg naa laa suturaal. waaw ba ci la. barke Demba Ndiaye nga ne fi coppit un million buuf. kan benn buuf. yow bi feeñ ba léegi yow may jiñ sax. yaa rek dañuy waxtaan. Amina maa teg moom dil mu def lii muy def ma ne pat mel ni du woon man maa ni ko organiser fexeel ba xaalis bi feeñ nga ne pat ak organiser Amina moo jël ay engagement am feeñal kii pour seetal yow yow yow yow li ngay wax foo ko teg. waxoo dëgg man maa organisé loolu yëpp waxoo dëgg. loolu amul waxoo dëgg. <laughs> waxoo dëgg. man sama rek nga ni lan nga ni yàgg Amina loolu dinaa ko laaj Amina. dina sama yoon nekkul yaa ne yéen a teg de yow yeboo ma Amina yebu ma. waaw doo noppi balaa kër gee riir waaw dama na na riir na riir loolu ñoom ñoo dencoon seen xamuñu fu ñu denc xaalis bi ci seen yére di naan fi ay sàcc amul set pas vrai waaye yow. ba yërëmal sa bopp laa lay wax ni bu ngeen buggee yéen yéen yow da yeb sax nga naan bërki dem bi nga fee ni cot ci un da ngaa réew cinq cent mille sax laa joxitu ah, ah, waxoo fi boo jotee cinq cent mille nga xam da ngeen ma ñaan la baat te duma la ñaan baat boobu waxuma la may dama la koy sarax kon baat bi waxal man fi mu ne samay néew ji de xam nga dañuy may baat booba ma sarax la ko sax damay xew. <laughs> ah déedéet passé ak doom ji moom même boo amul jëkkër dañ koy ngénte ndax am na baay am yaay du c'est pas am jëkkër doom la ñuy ngénte. yaay naax naa waaye di de waaw waaw xam nga waa kër gi dañ maa jël tege ma nee boolewuñ ma seen programme boolewuñ ma seen waxtaan. dégg naa leen nag ñu naan dañuy ndaw ndawtal nday njaay ku nekk war a dajale indaale seen som te comme que waxuñu ma dara damay bañ ñu gàcceel ma. fi ma xaarewul foofu laa bëgg a génn problème bi nag mooy xam nga ni xëyuma gont ma te man mënumaa ñaan buur ndax bu li mu tegoo rek àttanu ko rus naa ne ko jox ma ma ndawtal nday Ndiaye te man du jox du jox ami naa léegi nag dama leen bëgg a jël jël bu njëkk fu ma foogewul foofu laay génn waaye li li li garaaw mooy yoruma yoruma dara dara dara dara maa ngi xaw ma nag nu may def. fàttali ne loolu nga ma doon woowee téléphone suba ba léegi. su ma joxewul ci kër gi gàccee may topp. yow lii du kaa. lu tax ah, man sa yaay maa ngi dund di dew ma fenn te lu may xëy di liggéey suba ba ngoon yaa tax kenn taxul dangaa fàtte dama la doon waaj a xewal hmm. ñu rey sa doom ah ku yoroon xaalis ba du Cheikh Diouf Cramex moo ko yor hmm. xaalis ba nee na ma mi ngi sur place mi ngi nii ma teg téeméeri junni la umu ja ci États-Unis ni ma yaay booy fàtki ne rek laay xaar looy def maa ngi lay yónnee kon nga xam ni pare naa kenn du la toroxal ñoom ñooy torox ba a tot gis nga ku ndeyam liggéey ku ko yéene fande faaru gëléem lay njogoni koo toog di xaar dessert ak reer yaay c'est sûr que téeméeri junni yooyu ngay wax di nga ci jot umu ja yónnee na ma pare koy defal loolu maa ñëw defante ñoom fii loo xamante ni gàcce dana leen rey ndax li nga fi def lu kenn def te li neex mooy wax naa la bu du jox du jox ami naa ndax xam naa ne yoru ko léegi nag damay jéeg-jéeg rek fëlëg samay 500000 foofa toj foofa toj <laughs> nga bale ñoom xam nga comme ñoom góor rek lan tal xool maa ngi <laughs> <laughs> yaaye eh, rendez-vous